ndax ni mu koy ta waxee tafexi sëñ Tuubaa ji nu am ba sëñ bi bool na ci boppam bool na ñu nuy gind ci yoon wi te niñ ko jàngalee ci isbu tawxëy Seex Abdulaay sëñ Saaliw ba ci moom waaye moom mi li mu jàngalee li mu wone si ni ñu war a jàpp sëñ nu war a doxee ak ni mu war a jàngi ni mu jàngalee wat fi jamono toll nu ñu fi war a doxee mooy daw rek jëm sunu jëm sëriñ mi ba ñu am soxla jara moo xam ne isbu tawxëy ña nga ca noona muy taxaw nañ daw dem nañ ñëpp ci loolu la nekk daana sëkk nuñu ab soññee ci ñun ñëpp nan buddi ko doo jëm ca rek bàyyi lépp dëgmal sëriñ bi rek lii nag moom kon a xam ne ndam am na ci wax ni ñu ko wax waajtaay yu na te man dama bokk ci biir daara ji bokk ci waajtaay ñu bokk ci yéene woon ndam am ji moo tax suñu xol sedd na ndam am na ci kawe na njort te lépp jëbu ñu nangu rek moo war tax mën a nangoo ni kon yàlla na yàgg lañ ci mën a ñaan suñu mu taxaay yàgg yàgg liggéey bi yàgg lépp sëñ Tuba teel ko boppam di ko ubbee di ko wane yóbbu ko fa mu ko bëggee. maa ngi yéene woon ci kër sëñ Abdou Lahad dama ne sëñ bi ñett yi mën da ñàkk ci murit muy tarbiya ak tarqiya ak tasfiya sëñ laa laata leen tarbiya yéen waaye sëñ Saaliw leen tarqiya ba tax mu tudd leen is bi tarqiya ziar bi li ci xew ak li ci am ñëpp gis nañ ko mooy ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Atou Diagne mi nga xam ne moo àndoon ak mbooloo mi ci mboolem ñi fi ma a nekkal sëñ Touba suñu mboolem gërëm ko ñu suñu ñu ñaan suñu borom ko ay leer station ci barkeem ki nga xam ne mooy jëriñ sëñ Youssou Diop suñu ñaan ko suñu borom suñu borom booyee fal ko yéen bi ba fu mu jëmee mbooloo ma ñu yegg fak jàmm ci waaw maa ngi leen di kontaan ci yéen bu ñu tegee seen jàng yi maa ngi leen di ñaanal ba ba muy pare yéen yàlla ma leen bëggaloo ci sama xol bi barke sëñ Touba Mbacke bi nga toogee jotaay sëñ Mountakha kontaan ba sama dangoñ sottee sëñ Mountakha dafa baax ñëpp ko bëgg dafa dafa baax dafa ñëpp ko bëgg yan na ko yàlla yàggal yal na ko yàlla yàggal yal ko yàlla yàggal te yéen ngeen fekke ko ñëpp fekke ko kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci moom salaamaaleykum di métti du tamit sañ aatu moom fi jógee ñu ngi koy métti du lool ñu ko bëggoon jigéen ñi sax am nañu ma gis ba wax am nañu loolu daal moo doon samay taal ginnaaw yàlla gént bi jërëjëf muy tawfeex ju rëy kenn xamul